yëpp bu ñu ko xoolee nag dafay wane ni Sénégal mi ngi ci yoon woo xam ne rek kenn bëgg ko des ba tey ci wàllu politique ak beneenub yëglekaay bi àddu ci defante gi am jamono ji ci diggante pro Sonko ak pro Khalifa yi nag fippu mi ngi ci malaise moom kay gat sa gat sa bi nag tàmbali na ci diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di wal Walf Quotidien yéenekaay bi ne coow lu méttee métti moo dox ci diggante Pastef ak taxaw ña ngay defante ci seen biir yéenekaay bi di L'Observateur di pee ko defante gu benn saafara Pastef ak taxaw nag ña ngay saagante jàppante ci seen biir di sànnante ay doj te luy nag bu dakkulee nag mën naa tàbbil ci guuta ñi faree kujje gi tribune yëglekaay ne kujje gi kay na président Macky Sall la mu bëggoon ci biir yëglekaay bi waa Pastef ña ngay tuumaal Barthélémy Dias ne moo fa yabal ay nervi ngir ñu saboter rassemblement bi ñu doon amal fi mu toll nii nag ger ba nee na ci diggante taxawu ak Pastef yéenekaay bi ne rassemblement bi nga xam ne rek kujje gi doon nañ ko amal ci ab la mujjee vox populi na baptême de feu bi nga xam ne rek a métti la mujjee ci diggante pro xalifa yi ak pro Sonko jàppante yooyee nag dem sax ba poussé ñii di way takk der yi nag ñu daat leen di sox ay gaz lacrymogène ngir mën a tasaare ful bi xalifa Ababacar Sall moom ci biir yëglekaay bi ma ngay ñaawlu nag fitna googee nga xam ne rek ma ngay juddu ba noppi di lancer appel candidat yi nag ngir ñu daal di ànd akub dal ma ngay xam ne ni bu ñu bëggee am ndam ci suñuy bëgg-bëgg nag faaw ñu boole suñuy doole ngir mën a jëlee régime bi fi nekk ci bopp réew Sénégal waaye leneen lu ñu fi def nag lu mooy loolu xam leen ne ci yoonu lajju la ñu jëm ñeel élection présidentielle présidentielle yi addu jëmale ci élection yooyu nga xam ne rek jamono ji ñu ngi jëm ci semaine bu décisif enquête yéeglekaay dellu soit ci vacances du pouvoir ak seeti gi mu nar a seeti nag ñii di waa conseil constitutionnel yéeglekaay bi ne président de la république nag tey jii ci altine ji nag la fas yéene jot nag conclusion yi nga xam ne moo tukkee ci dialogue national bi waaye bu ca noppee nag dana seeti ji waa conseil constitutionnel ngir xool ana taxawaay bi ñuy a nag jëm ci proposition yi nga xam ne moom la ñu teg ci taabal ji président Macky Sall moo xam ne rek dañu koy poussé mu daal di démissionné nag nag yéene kaay bi di la quotidien ca la addu jëmale mu ay jege ñaaleem jamono ji nag li ñu bëgg rek mooy mu daal di jógee ci bopp réew mi laataa ñaari fan ci weeru avril ci jamono joo xam ne rek ña ngay ci ay manœuvre yoo xam ne rek ña ngi koy amal ci biir APR nag bés bi le jour daal di amal ab dossier bu yaatoo yaatu nag jagleel ko taxawaayu conseil constitutionnel lu démb ak bu tey ji yëglekaay bi defuk pàttali nag ci discours bi nga xam ne rek Assane Bassirou Diouf defoon na ko ci jamonoy Abdou Diouf lu jëm ci wàllu code bu Kéba Mbaye ak constitutionnel jaarale ko ci ay élection yoo xam ne rek jot na koo tëgg ci réew Sénégal ak lu jëm ci mandat président de la république yi nga xam ne rek jot nañu fee jaar loolee lépp nag yéenekaay bi di bés bi le jour dellu siwaat na ci àddu jëmale ci soleil yëglekaay moom ma ngay àddu nag ci sommet bu Alger bi nga xam ne rek ñii di forum des pays exportateurs de gaz doon nañ ko amal Sénégal nag fi mu toll fekk ji na boobee kuréel lañ ca jublu nag bu ñu sukkandikoo la république nag bokk na ci teg naturel bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom président de la république nag fexe ba lépp ñu daal di koy yemale nag loole bokk na ci li waral ñu daal di dugg ci boobee kuréel addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak Marseille Pape Gueye jamono ji nag ma ngay addu jëmale ci li ñu ko écarté sunu lamb dellu soit ci ñaari promoteurs yi nga xam ne rek ñoom jamono ji bëgg nañoo taxawal ay combat yu mag a mag bokk na ci diggante Siteu Modou Lo ak Ama Baldé mbokk yi li gënoon a fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen seen revue de presse